Assalamu alaikum. Nous leen ziar len di leen béggee bu on se retrouve encore une fois sur votre chaîne a Pro avec un immense plaisir Continuez leen di abonné ngeen bës cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel bu len fàtte di like vidéo bi manam di bës ci baram bi pouce bi da ci am solo lol. diko ko aimé bu baax a baax da fay tax vidéo bi mën a sori tasaaroo ba kenn ku nekk mën ci jot bu len fàtte tamit diko partager waaye tamit euh, di commenter comme allons l'habitude de le faire, de voir sur ce qui concerne l'actualité politique sénégalaise. on va parler de euh, et Seydi Gassama, deux membres de la société civile. Après radiation ou Barthélémy Dias Assemblée nationale par le bureau de l'Assemblée nationale, nous def ay sorties des sorties honteuses pour la démocratie sénégalaise des sorties honteuses pour la république parce que mën sommes dans une république mu am constitution boo xam ne askan wi ñoom ñoo ko voté mu am ay député yoo xam ne ña nga nekk ci péncum ndaw réew ma askan wi yebal leen fa ngir ñiy voté loi yi constitution bi ci article soixante et un dernier alinéa dafa wax ne képp koo xam ne dangaa nekk député ñu fal la suñu gëstoo ba xam ne da nga am condamnation ministre de la justice dafay bind le président de l'Assemblée nationale ngir bureau bi dajé man la dak. constitution bi moko wax te constitution bi sénégalais yépp dañ ci dëppoo comme nous jullit yépp dëppoo ci alcorane ne lépp lo xam yalla wax na ci c'est à respecter amul c'est à dire alcorane lépp lu ci nekk sami'na wa ata'na mo ci nek bu la téré da ngay bàyyi bu la digalé da ngay jëf constitution bi nak non la mel parce que nous sommes dans une république laïque ñu tek ben constitution bo xamné ñun ñëpp dañ ci ànd dëppoo ci ñu voter ko légui Barthélemy Diaz mom moy kan ba constitution bi lu mu wax duñ ko appliqué ci kawam Barthélemy Diaz mom moy kan ba loi yi lu wax duñ ko appliqué ci kawam te bo demee tay ci règlement intérieur bu assemblée nationale ci article cinquante bi dafa deugal li nga xamné mom la constitution bi wax ci loi organique Allez, ah, léegi Barthélemy Diaz est-ce que mom mo gën yenen sénégalais yi nga xamanteni dañuy appliquer loi ci sen kaw léegi dañuy bayyi Barthélemy Diaz nek assemblée nationale ñu jalgati constitution bi pour lan pour élégance républicaine ok man société civile bu sénégalaise bi ñenn ñi mënuma leen a comprendre quoi man xawma lan moy sen problème quoi bëgg di contre nguur di contre nguur ba lépp lu am même bu dee jalgati yoon sax yow nee nga nañ jalgati yoon quoi mais loolu c'est une insulte pour tous les sénégalais jalgati yoon pour lan pour Barthélemy Diaz bi nga xam ne amalul askan wi benn njëriñ bi mu nekkee député ci 14e législature bi lu mu dem assemblée nationale dañ koy compter mosul def benn proposition de loi mosul def benn amendement amalul askan wi benn njëriñ askan wi ko yóbbu foofu noonu ci assemblée nationale même su a dafa un député bu amal askan mais la loi c'est la loi la loi est dure mais c'est la loi Ousmane Sonko Macky Sall daf créer ay dossiers judiciaires ba ñëpp ne Macky Sall a créé dossier judiciaire ou une association de malfaiteurs ay bandit magistrats ay juges ak ay procureurs dem ay journalistes di fen di sos ut ay chroniqueur ñu Ousmane Sonko ne dañ koy jaay doole yàq deram pour toroxal ko rendre ko inéligible bi mu ba cour suprême ñu condamné Ousmane Sonko qui avait de en complicité avec le conseil constitutionnel mais nous na xam nañ moo nekk ci gannaaw moo organiser lépp ànd ak association de malfaiteurs am ñu xañ sénégalais ki nga xam ne l'écrasante majorité des sénégalais moom la àndal ne doo nekk candidat te Barthélemy Diaz mujj gi def leen rejoindre ñoom ci seen association de malfaiteurs boobu war Ousmane Sonko mi mu doon owee doomi ndaayam démb war Ousmane Sonko mi nga xam ne moo tax mu dégg monsieur le maire de la capitale sénégalaise muy Dakar. boole ak di ko diko di ko di complot ak Macky Sall pour toroxal Ousmane Sonko pour yak ko yak adunam pour éliminer ko politiquement te Ousmane Sonko bobu sénégalais après dañ ko muñ Ousmane Sonko def ay stratégie ba dougal président Diomaye sénégalais dégg ndigal Ousmane Sonko falal ko président Bassirou Diomaye fay mu and ak mom di gouverner te jamono jii nii tey bu taxutoon ak Macky sàll ak band yu mu àndal ay voyous dont Barthélemy Diaz mii tey ñu dàq ci assemblée nationale bi ku noonu Ousmane Sonko mooy nekk président de la république loolu lan moo ko gën a metti waa léegi mi Diaz moom moo taxaw ne moom moo rey Ndiaga Diouf assumé ko bi mu dóoree balli fetel lan la wax daf ne rey naa nit dama leen xool am na ko tëdd donte nee nañ après rayu ko waaye kenn xamut lañ moo nekk ci gannaawam parce que Macky Sall ma demoon di ko défendre ba dugal ko ci liste député yi génnee ko kaso bi Barth amaat ak moom problème moom moo julaat dossier boobu daf ko épée de Damoclès di ci xeexee Barthélemy Diaz dem ba condamné ko waa léegi buñ ko xasee ba condamné ba pare jaar na yoon ak jaarut ak yoon dañoo politiser dossier bi politiser wuñ ko donte ñun xam nañ ne dossier bi am na politique parce que bi ñuy bi muy ànd ak ñun Ousmane Sonko ànd na ak moom di xeex parce que Macky Sall képp ku mu bëgg éliminer justice la lay jaarale te dossier boobu waroon nañ ko vidé bu yàgg mu jeex. léegi Barthélemy Diaz boobu àndoon ak Ousmane Sonko di xeex pour Macky Sall bañ ko éliminer moom jaarale ko ci justice Barthélemy Diaz boobu après moo dem lëkkaloo ak Macky Sall war Ousmane Sonko pour yàq Ousmane Sonko boolekaak ay saaga ay xaste élection yi passé mu dem recruter ay nervi ne day song ay nitu Sonko fekk ay nitu Ousmane Sonko yu nekk Saint-Louis dal seen kaw cor leen ay jaasi reewaande gi mu nekkee ak xamadi gi mu nekkee kooku dafa nekk exemple ci démocratie ba ñuy xool ay naan dañuy xool ay élégance républicaine même bu nekkoon ku gën a yaru ci Sénégal nekk ku gën a baax ci Sénégal nekk ku gën a yiw ci Sénégal la loi est dure mais c'est la loi mais société civile bu naa fekk boo xamante ni kenn xamul ban façon société civile la yéen war ngeen a toog fii di encourager ay nit pour ñu jalgati constitution bi mais loolu c'est une catastrophe alintine at yi nga am di yàgg xeex pour état de droit yag xeex pour le respect des droits de l'homme des droits humains yàgg Seydi Gassama nit ñi yag leen jox cër yag leen respecter respecté ne léegi yéen nañu jalgati constitution bi jalgati règlement intérieur bi jalgati code électoral bi donte man naa am jaarul yoon parce que Macky Sall ñëpp xam nañ ne dafa amone ben majorité assemblée nationale bo da doon lu ay loi liberticide pour xeex ay adversaire politique am loolu la ci jublu woon te loolu mën nañ ko réparer yu bëri yoo xam ne def na ko ci code électoral bi pour xeex ay nit ñu bañ a nekk candidat wala mu rendre leen inéligible loolu xam nañ ne jaaduwul mais comme voté nañ ko ba pare te instant bi loolu moom moo fi ne moo ne ci constitution bi moo nekk ci loi yi mais il faut ñu respecter ko il faut respecter la constitution il faut respecter les lois léegi nag comme Pastef ñëw na am na majorité mën na réparer yu bëri waaye nag li fi ne nga xam ne tey moo fi ne ñun ñëpp ñu tënku ci loolu dañ ko war a appliquer ci ñëpp amul Barthélemy Diaz amul kii amul kaa Barthélemy jaas ban njëriñ la amal Sénégalais yi lu dul mën a saaga réew wor ngeen taxaw di ko faral moom mu jàpp na moom ci dëgg la nekk ñu koy faral ñëpp ay naafeq lañ amna ño xamne tay ñu ngui koy faral bi ñuy éliminer Ousmane Sonko di persécuter Ousmane Sonko di ko barikade, di japp ay nitam di tëj di ko toroxal ñu ngi tok nopi neutre ñu ñew naan ñu ay élégance républicaine lan moy élégance républicaine élégance républicaine fay tax ñu jalgati yoon société civile bo xamne bu nit rayé nit sax ñu ne ki ray nit ki mo ëpp droit ki ñu ray mais ba jusqu'à quand bëgg contre pouvoir contre pouvoir ba yow bu ñu waree jalgati de sax da nga nañ pour élégance républicaine est-ce que Barthélemy Dias il est élégant Barthélemy Dias xamadina réew arrogant il n'est pas un homme d'État Nek traître de classe exceptionnelle war Ousmane Sonko war bu gën a salte ci war yu mës a am ci àdduna bon kuy wër ni ku yées ku bon ku xaraam ku mën a wor jàppal Barthélemy Dias nekk fi mel ni benn ñebe ci cin nit ñi war a dem élection au lieu que mu nit ñi programme am mu wax leen ko nekk fi di saaga Ousmane Sonko subaa ngoon guddeeg bëccëg mu ñëw sénégalais yi na ko yow comme kan nga Ce bureau de vote sax doo ko gagné présidentiel yi gagnewul bureau de vote législatif législative yi bureau de vote am wan ko ne ko tekki wo dara ci réew mi mënoo gagné bureau de vote mënoo gagné ce commune mënoo gagné ce département ga defar ce ben coalition amoo lu dul député ki ngay euh, diir mbag bëgg ko def morom te du sa morom cent trente député la am te lepp ci touram la mom ci barkem la ko amé nga ne koy jaay da koy diir mbagg xamadi reew bon mën a wor jàpp ne loolu mooy politique Barthélemy Diaz wor bi mu wor Ousmane Sonko ñaaw gi mu ñaaw ak salte gi mu salte moo tax li ko dal nii yëpp yàlla moo koy wan boppam li may wax nii sax jugement personnel la waaye yéen ñi nga xam ne yéenay société civile bi laa lay wax warul leen encourager pour ñuy la constitution bi wala ñuy jalgati code électoral bi wala ñuy règlement intérieur bu assemblée nationale yéen da encourager pour nous respecter et faire respecter la constitution et les lois loolu moom rôle mais seen rôle du lépp lu dal ci kaw nit même bu fekkee la sax koy défendre. Barthélemy Diaz warul siège à l'Assemblée nationale parce que dañ ko condamné mais Barthélemy Diaz liko dal ni tay moom anticiper nako waxal ko depuis longtemps jour bi ñuy voté loi d'amnistie bi Assemblée nationale ci présence ministre euh, de la justice de l'époque Aïssata Tall Sall sale. mo jël parole wax né je ne suis plus éligible parce que j'ai été condamné définitivement Ce dossier Ndiaga djouf bi léegi bu nexé sama yaay jële tok nga xam mo nékkone sama avocat Aïssata Tall Sall su bindé président assemblée nationale man dootuma nekk député mais moko wax mu leer vidéo yaangi fi mais mom reconnaître na bopam Mais mom il fait l'objet d'une condamnation définitive il n'est plus éligible mais sama yaay jële tok, je le répète encore Aïssata Tall Sall su bindoon légui légui légui légui président assemblée nationale man dootuma nek ci député Wa légui kon Aïssata Tall Sall dal bu ko defone dagan na Wa légui bu ko Ousmane Diagne defé ci nguru Pastef boobu mom daganul quoi mais mom mu ko waxolone boppam ci jamono jooju bu ko Aïssata Tall Sall defone kon xanaa moom mu ko waxal boppam xanaa kon du ci kaas du ci mer parce que reconnaître na ko ba waxal ko boppam léegi parce que Pastef ñoo toog ci seen rañ lañ ko defee ministre bi def li ko yoon sant naa fekk yëpp jóg naan ay mbiru politique la ay lan moo tax recalé wuñ ko woon bi muy dem euh, ci élection yi naan dañuy jéem a vaar Ousmane Sonko gis naa ñu naan dañuy vaar Ousmane Sonko quoi ree def ma jàpp Ousmane Sonko bi muy wax naan Macky Sall dafa bëgg rendre Barthélemy Diaz inéligible nangu maireem bi ak poste député bi dossier judiciaire yu muy créel nit ñi daf ko épée de Damoclès pour condamner la ba nga inéligible loolu mo taxone muy wax mais Ousmane Sonko dañ ko créer ay dossier comme ni mu ko fan la mujjee condamné ne ko condamnation bi ñëpp xam nañ né jaarul yoon mais taxul Ousmane Sonko nekk candidat parce que condamné nañ ko ba pare kenn mënu ci dara. Barthélemy Diaz tamit lolou la ko doon Ousmane Sonko di bañal xamna na ne Macky Sall dafa téye dossier bi diko politiser léegi loolu mo taxone Ousmane Sonko doon wax nan dafa bëgg nangu maire bi bëgg nangu poste député parce que xamna na ci condamnation la doon jëm ak Barthélemy Diaz te pourtant ñom ñoko sétal setal na Barthélemy Diaz rayul nit biñ koy condamné condamné wuñ ko sax pour meurtre parce que waroon meurtre la duñ ko tëj 2 ans dont 6 mois ferme mais coups et blessures volontaires boo xam dafa entraîner ray nit dafa mujj ray nit loolu loolu lañ ci jublu coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme xom nañ lañ ko tuddee non loolu rek lañ lañ ko condamné donc kon nangu leen ne Barthélemy dañ ko condamné li ministre bi def loolu la war a def li ko constitution bi sant loolu la def def na ko mais jeex na c'est tout la loi c'est la loi ñun lii bi mu ñu dalee ci Ousmane Sonko nii lañu ñu méttee woon na ko muñ na ko muñ la loi est dure mais c'est la loi loolu la jeex na tàkk bàyyi leen seen naafeq gi ngeen nekkee bu ngeen nekkee ci dëkk bi su fekkee nit ki dafay dund injustice man ngeen taxaw ngeen dénoncer ko waaye nag su fekkee ne yoon lañ def da ngeen di nangu ne yoon lañ def mais ni ñu génnee Barthélemy Dias assemblée nationale jalgatiwuñ benn yoon li constitution bi wax lañ def li code électoral bi wax lañ def lu règlement intérieur bu assemblée nationale wax loolu lañ def képp koo xam ne da ngay ñëw nag di ko interpréter ne naan ay jaay doole ak injustice da ngay wax lu la neex da ngay politique mais li ngay wax tegoo ko fenn. Barthélemy Diaz bu ñu ko bëggoon a xeex du nekk candidat ku doon ministre de l'intérieur moom mooy bind waa conseil constitutionnel wax leen na leen kii warul nekk candidat ñu génnee ko ci liste bi mais dañ ko bëggoon a bàyyi mu ngand ngandalu di jaay reewaande ak xamadi ba jour élection yi ñu duma ko ba pare dàq ko ca xaj wax ko ne wan ko ne ko doo tus tekki dara rëy làmmeñ nga def ak mën a sóob na préparé il est mort politiquement li mu won Ousmane Sonko tay moko dal la yow nit ko rek la yow defal la teranga, fonku la respecté la jël la def la candidat à la mairie de Dakar au détriment des membres de PASTEF ba am à PASTEF yu ko ci ba nek maire de Dakar jambou bi yow gungé ci dossier bi koy ay grenade lacrymogène wa PASTEF ñu bëri dañ ko ci mere woon naan ko kii ngay defal li jaru ko parce que c'est un traître Moustapha Sarré mi nekk tey porte-parole du gouvernement mais yàgg na ko wax Ousmane Sonko ba jàppante woon na ci tuuti ak Ousmane Sonko sax ndax li Ousmane Sonko doon daj ci Barthélemy Diaz daf ko ko doon wax ne ko kii jaru ko c'est un traître te tey histoire jox na ko raison moom Moustapha sare waaye Ousmane Sonko nit rek la xam nga nit. da ngay am njort bu rafet ci nit ñi rek képp koo xam ne gis nga ko da ngay jàpp ne ku loyal la envers toi nga am njort bu rafet ci moom fii nit yàgg na jàppale nit ba pare nit ki war ko mais Barthélemy Diaz c'est un traître bu salté bu bon parce que nit xam nga war dafa bëri sax ay degré mais moom ni mu waree Ousmane Sonko moo salté ba pare ñaaw yow imaginel nga wor nit xaar ba nit ki nekk ci jafe-jafe mu wóor na la yow kii dañ kaa yow nga jàpp ne comme loolu daloon na xalifa Sall rek Ousmane Sonko tamit loolu daf ko war a dal bu ñu ko tooñee loolu daf ka war a dal nga jàpp ne comme tëjoon nañ la kaso yow tamit nga jàpp ne ki la kaso moom it même bu tooñee Ousmane Sonko daf kaa war a tooñ tëj ko kaso te yow comme nga doon ànd ak moom di xeex di ko woowee sama doomi ndey ndeke li ngay wax yëpp dara du ci dëgg lépp yaa ngi ut benn occasion pour bo amé maire de Dakar bi nga xamné moy ce plus grand rêve nga wor ko wor ay nitam jël Abbas Fall génnee ko si maire bi te xoola Abbas Fall nek na ministre du mën la Dakar ba paré ba jël sept députés yi dem nek ministre ci gouvernement bi te yow so nek ministre Ousmane Sonko mo Macky Sall dàqoon ci administration bi ñëw na tey ba nek le patron de l'administration. Ousmane Sonko mi ngeen doon jappalé Macky Sall pour mu ray ko politiquement nga japp na bu Macky Sall bokul Khalifa Sall. day ñew nek président facilement Ousmane Sonko tay c'est le chef du gouvernement te mom mo fal président bu fi nek ginnaw yalla ak askanu Sénégal te mënu len ci dara yow nak ya Ousmane Sonko dina la sul wala nga sul ko politiquement Ousmane Sonko nak sul na la amal jom nga tecc sa gemeng gi tu dois fermer ta sale gueule parce que tu es mort politiquement da nga waxoon ne yéen ñaar kenn dina ci ray sa morom mais nangul ne Ousmane Sonko mo la ta ray na la politiquement

waa Dakar ñoo la njëkk a jéppi parce que traître nga traître bu salte nga bu bon warkat baa doola salaamaaleykum wa rahmatullah